salaamaaleykum mbokk yi ñii ñuy ñëpp di leen ziar di ñaan également suñu kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm ak seen njaboot jàmm jooju tamit ñu koy ñaanal réew mi waaye di ko ñaanal tamit ki ko jiite muy le son excellence le président Bassirou Diomaye Faye waaye tamit di ko ñaanal son premier ministre monsieur Ousmane Sonko le président également du parti Pastef euh, ginnaaw loolu tey. mbokk yi ñun GPS bu daaru dañoo ñëwoon ngir waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni si ay xew-xew la ci politique yu fi jot a jaar lu mel ni ki euh, investiture ci élection législative anticipée de de du 17 novembre 2024 waaye tamit di ci teg tamit di wax yan taxawaay lañ ci war a amee euh, balaa ñuy tàmbali nag dañuy sant di gërëm ki nga xamante ni mooy M. Ousmane Sonko di le premier ministre di le également président du parti Pastef ndax xam ñun wóor wóor nañu ni metti won na top ci moom pour mu def ay choix ci li nga xamante ni ay candidat à la candidature la woon euh, donc choix tamit bi li si génnee ñëpp d' accord nañ euh, euh, par son par sa clairvoyance également et par sa capacité de discernement

daaru la dëkk naam am na ñu daan investir ñu dëkk daaru waaye yaakaar naa benn yoon la woon ci benn parti opposition boobu parti boobu tamit mi ngi nekkoon ci opposition waaye pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal et de daaru ñu investir doomu daaru boo xamante ni si parti mouvance présidentielle moo ko investir donc loolu tamit jar tamit kon ñu sant ko ci ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñun ñooy waa daaru waaye tamit ñun ñooy doomi département Tivaouane liste passive, c'est la meilleure des listes pourquoi c'est la meilleure liste parce que c'est la liste la plus équitable mais également c'est la liste la plus équilibrée la liste la plus équitable pourquoi parce que nous, nañ un non-voyant nous investir ko mais gis nañ tamit une personne à mobilité réduite donc pour la première fois dans l'histoire nous gis ñooñu ay parti au pouvoir d'investir pour nous dem à l'Assemblée nationale donc ku ci nekk daan nga toog di wax woy égalité des chances égalité des chances di chanter par ci et par là mais li nga xamante ni moom la ci def comme ay preuve yaakaar naa benn nguur de ko def euh, la liste la plus équilibrée euh, pourquoi ndax euh, buñ xoolee liste toutes les couches sociales ont été tenues en compte mais également toutes les cultures dañ ci gis seen toutes les tranches d'âge dañ ci gis seen foofu nak surtout li nga xamanteni mom moy la jeunesse parce que niñ gis investir niñ investir jeunesse bi mus ñu ko gis ci année yi passé ndax kon lu melni ni département de Thiès da ngay dem fekk fa ñu investir fa ñaar ñaari étudiants loolu yaakaar naa c'est une c'est une grande première euh di ñaax tamit xamal ni tamit Ousmane di wax ni Ousmane Sonko tamit ku bàyyi xel département Tivaouane la ndax bàyyi xel gu ko bàyyi xel Euh, moom moo waral tamit li nga xamante ni am nañ ko ci investisseur di ko ci santaat bu baax di ko ci gërëm ndax bàyyi xel googu tamit yàgg daf koy daf daf koy yàgg wax waaye tamit daf koy daf koy yàgg jëmmal ndax kat euh, département Tivaouane buñ ku ne xam nañ ban engagement lañ amoon ci euh, le projet Pastef guddil nañ ko bëccëgal nañ ko pour projet bi mën a yëg si fi mu yëg si tey bañ naan le parti passé moom mooy le parti au pouvoir euh, donc nag taxawaay yooyu yëpp ñoo xamante ni waa département mi ngi koon am moo gënoon yokk tamit kii di Ousmane Sonko tamit doon leen bàyyi xel euh, saa su ne bàyyi xel googu tamit day feeñ ci li nga xamante ni moom mooy les investitures ndax investiture bu boo xoolee en tout et pour tout boobu di nga mën a compter euh, huit personnes yoo xamante ni ci département Tivaouane leen dëkk nekk ci liste yi muy euh, li nga xamante moom moo nekk la liste nationale waaye tamit mu nekk li nga xamante ni moom moo nekk tamit euh, euh, kii la liste départementale donc investis nag comme ni ma ko waxee woon rek c'était des investissements justes et équitables ku mel ni Assane Diop ki nga xam ne moom lañ inscrit ci la liste nationale ku ne gis na taxawaayam bi mu amoon ci dernier la ci 14e législature bi moom taxawaay bu rafet macha allah di nga xamante doon na ko taxawaayal département Tivaouane waaye doon ko taxawaayal Sénégal gi yëpp également tamit ñi nga xamante ni investir nañ dañ ci génne tamit ku ci mel ni Fatou ay dara ku ne xam na taxawaayam ci biir Pastef ku ne xam ne gis na taxawaay tamit également sur la défense des causes faible de la même manière que Madiaw Diop nga xamante ni ñoo xamante ni seen dund yëpp dañ koo sacrifier pour la jeunesse mais seen dund yëpp dañ koo sacrifier pour défendre le couches euh, euh, les plus vulnérables ñu ñëw nag daf taxaw seetlu ci nga xamante ni tey daanaka moo waral Euh, wala lu ci bëri bokk ci point de presse bi tey ñu def moom moom la moom mooy Ousmane Sy bi nga xamante ni moom lañ investir tête de liste de Tivaouane muy doomu daal donc nag waa Daaru yëpp euh, yaakaar naa ni ñoomay setaan te xam nañ Ousmane ban taxawaay la amoon euh, ci Daaru à travers ses sorties médiatiques mais xam nañ ban taxaw ban taxawaay la amoon à travers le département ci ay sorties médiatiques ndax département de Tivaouane et particulièrement tamit commune de Dar Khouros, dañ dañ dañ léger sur les investitures régime yi nga xamante ni ñof jaar malgré leur potentialité économique malgré leur potentialité minière malgré leur potentialité euh, maraîchère humaine halieutique etc. cetera et cetera loolu lépp buñ ko woowe nga de ni Darou amoon na ci ay potentialité yépp yeneen régime yi passe daal daan dañ ko woon foule au pied def def ay investisseurs yoo xamante ne leen neexee donc nag nguur gi bu dikkee def une correction boo xamante une injustice sociale la boo xamante ni c'est j'allais dire que c'est une injustice qui n'a fait que trop durer donc dañ leen ci euh, santaat bu baax a baax mais également tamit di leen wax ni tamit ñun dinañ leen wan ni bàyyi xel ngeen ñu bàyyi xel mais également tamit choix yi ngeen def ay ñun choix yoo xam ne nekk na ay choix xam ne ñun mérité nañ ko mais également tamit dinañ fexe ba nga xamante ni confiance bi ngeen am si ñun incha allah daañu ko honoré euh, ci kaw loolu ci laay euh, euh, waxee ni département de Tivaouane yëpp nañ jug département yëpp Tivaouane yëpp nañ taxaw taxaw ngir voter massivement la liste de Pastef ba au soir du 17 du mille novembre 2024 bu ñu wàññi xob yi département de Tivaouane liste Pastef ëpp na fi ay ay ay xob ci ci dans dans dans toutes les boo jugee Daara Khoudoos dem euh, Daara Khoudoos ba nooto jaar mbooro nga jugee Daara Khoudoos ba Tivaouane jaar Taïba ba Serif Lo euh, jaar Taïba Ndiaye jaar Tivaouane nga jugee waat fii jugee Tivaouane dem Pire Ngaañ Mexe Ngaañ Diouf euh, Pekes

une obligation de contribuer massivement et grandement ci li nga xamanteni ci mom moy la liste nationale ndax gagné département bi nam baxna mais ñun tamit ci nga xamanteni mom moy euh, liste départ liste nationale bi ak li nga xamanteni mom moy l'électorat national ñun départemental war ñu la suñu bopp ñaata lañ ci contribuer ndax kat kenn warul dem ñu tok kenn warul dem ñu tok ndax département bi lepp lu loo xamante ni si Amana. amaana euh, mun doxal Sénégal wala mëna na yor Sénégal amna ci département bi kon tamit nag ñun tamit ci kaw loolu lañ war a jugee waa tamit def loo xamante ni kenn defu ko ci yeneen département yi kon ñi ngi ñaax département Tivaouane bi yëpp ku ci nekk nga jug nga def ko sa yëfi bopp ñu ñëw voté massivement la liste de la liste de euh, la liste de Pastef di leen wax ni tamit bis boo leen voté les liste Pastef sax na waam incha allah di nga buñ ci demee amaa dañ ñëwaat fii toogaat fii waxaat leen ni leen kat suñ député yi nga ñi nga xamante ni moo taxoon ngeen ñu doon xeex moo taxoon ñu ngeen doon voté liste national di ngeen gis seen taxawaay ndax ñi nga xamante ni ñoom lañ investir ñëpp man de gisuma ci ku ñàkk fayda waaye gisuma ci ku ragal gisuma ci koo xamante ni dina nëbbu dëgg donc muy nit ñoo xamante ni c'est des hommes de valeur c'est des femmes de valeur ñoom ñoo nekk ci ñi nga xamante ni ñoom lañ investir donc seen taxawaay tamit dañ koo wane avant ñu nekk candidat à la euh, candidat député ou bien candidat à une législature donc nag comme ñoom déjà wane woon seen taxawaay yaakaar naa tamit ku ci nekk war na mën a dëgg ci loolu tey pour voter leen ma nga xamante ni taxawaay bi noonu am ba ñu yoragul dara li naan euh, kuy raam di la bokk bu amé taxi dugal la ci donc nag tay bu nañ fexé ba comme ñu ngi doon ram dañuy bokk tay nañ fexe ba jox leen taxi ñu mëñ ci duggal donc fofu lañuy wacce wàccee yi di sant gërëm di sant ñëpp. di leen gërëm di leen wax nag élection yi soreetul ku ci nekk xam nga liñ ci war a def ku ci nekk xam nga liñ ci war a jëf kon nag ku ci nekk dug euh, dox ci lool incha allah ba au soir du 17 novembre Pastef gagné au lame incha allah ñu ngi leen jaajëfal bu baax